parce que boo nekkee effectivement donc dans une coalition et donc dans un parti ay règles de fonctionnement la ñu teg ay principes la ñu teg ñëpp ànd si boo xasee ba ànd bu demee noonu je crois que il faut pas venir a posteriori di poser effectivement donc un débat boo xamante ne waru mën a nekk donc man j'étais pas dans des logiques de compétition par rapport à à un poste à ce niveau-là je crois que cette mise au point là euh, il était nécessaire mu def ko. Euh, Au niveau aussi euh, de la primature, c'est le président de la République qui effectivement choisit son premier ministre sur la base de critères yoo xamante ne moom moo ko amee euh, là aussi euh, newuñu si logique gu compétition par rapport à qui que soit il ne s'agit pas d'une compétition et ça revient si li ma waxoon sànq mooy que ne dañoo am ambition am une mission on est missionnaire par rapport à toute chose que l'on fait on considère que li ñuy def mission la bu war a def la ambition bi ñu am ambition pour suñu réew la et puisque leadership nga doon wax tout à l'heure le véritable leadership mais un leadership ça ne se décrète pas je suis désolé un leadership du kenn du ko décréter lu population yi de manière générale di sentir la ñi nga àndal à la base reconnaître ko sa jëf ak sa taxawaay ak sa posture si réew mi tax ñu nangu ko loolu mooy def effectivement un leadership donc le leadership dafa exiger l'adhésion des populations c'est-à-dire des Sénégalaises et des Sénégalais et de ce point de vue-là euh, c'est assez prétentieux nit ñëw naan effectivement moi je suis leader ou bien moi j'ai un leadership laissons nañu bàyyi Sénégalais yi pour Dakar ñu def effectivement seen seen choix. Euh, à tes ambitions d'en le le le le, le véritable maître ou bien da nga rangé wu léegi euh, derrière Amadou Ba euh, qui en tant que euh, premier ministre aussi a toujours aspiré à être le leader de Dakar. mais ce débat de leader de Dakar ou de patron de Dakar comme ni ñu ko doon wax en son temps ou le maître de Dakar c'est un faux débat tu sais ñun ñuy def politique là ñun ñëpp xamante nañ on sait effectivement ku nekk lan mooy say force ak lan mooy say faiblesse. Et nous ne sommes pas aussi dans des logiques de se ranger derrière qui que ce soit. En tout cas, moi, Abdoulaye Moussar, pour qui ma connaît, je ne suis pas du tout dans une logique euh, de me ranger derrière qui que ce soit. xam nga kan laa rangé wu dama rangé wu derrière effectivement l'intérêt des populations sénégalaises derrière ambition bi ma am pour sama réew derrière effectivement donc li xamante ne sénégalais yi ñoom lañuy ñoom lañu man loolu la ñu xaar si man loolu moo nekk sama kanam mais me ranger derrière qui que ce ah, loolu amul cependant comme ni ma wax sànq mooy que ne parti boo gis dafa am une organisation organisation boobu pour am efficacité opérationnelle pour attendre benn résultat par rapport à un objectif par exemple électoral forcément day am une répartition des rôles et de ce point de vue là ñun ñëpp que muy Amadou que muy man que muy quelqu'un d'autre ku nekk y un rôle bu ñu la confier ce rôle là nga exerce ko dans les limites effectivement des termes de référence bi la jox mais nous ne sommes pas dans des logiques hiérarchiques pas du tout alors en politique nous sommes dans des logiques de répartition des rôles ku nekk am une fonction importante boo war nga jouer ko en toute responsabilité mais encore une fois ce débat là de patron de Dakar de maître de Dakar ou ce faux débat qui me met face à Amadou Ba c'est un faux débat Amadou c'est un frère on s'entend très très bien on se respecte très, bien très bien aucun problème entre nous mais chacun d'entre nous a sa personnalité ku nekk aussi am nga sa ngëm-ngëm ku nekk effectivement am nga say principe euh, loolu moo tax peut-être euh, ñuy poser ce problème là mais entre maag moom y a vraiment pas ce problème